Euh, empoisonné sous la demande du procureur ak sûreté urbaine bi activé li nga xam ne moo di enquête mais Ablaye Mbow euh, connaissant docteur Niang xamoon nañu ne euh, mosul tendre ak <laughs> peut-être si on peut l'appeler si on peut le ak gouvernement bi fi nekk beaucoup de choses se sont passées ici à travers Covid beeg yu mel noonu gisoon nañu position nag yu mel noonu alors naka la ñu mën a jàngatee rappelant fait yooyu yëpp ba jon yàlla tey ak arrestation bi. xam naa ni sax comme koor gi tàmbale na. te yow da ngay bokk ci grand plateau. <laughs> te nen na Aïcha moom foofu nag maak yooyu ñu complot xool nuñ ko yóbboo service toxicomanie. <laughs> <laughs> ah nen na Aïcha pour xool pour xool ndax am du jël dara. moo xadi ah? colonel xanaa. non xadi moom ñëpp xam nañu ne day jël. te li muy jël bari waaw waaye nen na moom foog ñu xool. Eh. ndax euh, yu foog ñu yóbbu ko toxicomanie. comme ni ko Bamba waxee. mais encore une fois. Mm. Euh, tu ma permettras euh, ma tàmbale foo xam ne dafa solo. gis nga. Cheikh Omar ak ñeneen ñi chaque fois damay dégg ñu ne dañ ko laaj te laaj boobu bu ñu ko laajee rek ça veut dire que c'est dangereux laaj boobu est-ce que c'est dangereux en fait moi je pose la question et j'essaie d'y répondre mm-hmm. tey jii nii sur le terrain bu fekkoon ni Seydou Mohamed mm-hmm. po croix rouge nationale moo ko ko laaj daañu ne c'est grave bu fekkoon ni ambulance su SAMU nationale moo ko jël laaj ko loolu ñu ne ko ñu ne loolu c'est grave parce que yooyu c'est des structures cent pour cent publiques yaa ngi may dégg bu baax bu baax te sapeur pompier sax boo koy xool est-ce que terrain sa euh, manifester boo amee da ngay gis ay sapor fu ne sapeur boo ko wooyee danga koy orienté fan lay ñëw jël si ki gaañ waaye croix rouge le plus souvent la ñuy gis mu nekk sur sur le terrain mais léegi Mohamed mm-hmm. yow boo feebaree nga yeewu dem clinique boo ñëwee clinique danga nga naan faj leen ma clinique lu mu laaj dina la ndax yow fonctionnaire nga dina la laaj ndax yow am nga prise en charge. ndax yow am nga assurance boo amul loolu lépp quel soit li nga feebar da laan demal cité wala demal faan. c'est clair. donc ça au moins léegi. Ah. bu fekkee ne nag euh, association parce que parti politique association privée la. Mhm. man pour gindi laa wax ah, dëggu ma bu baax. waaw parti politique association privée la. association dafa am ay bànqaas bànqaas yooyu dafa am benn commission sociale bu contractualisée ak suma assistance. mais léegi bu fekkee ne blessé am na mais blessé bi jamono ju ñu koy évacuer par rapport ak li nga xamoon di police d'assurance bi nga xam ne dañu koy jël mais mënuñ ko laaj ndax am yow fi nga boq mais teewul prise en charge am na am déet dinañ la laaj fan nga fan nga bokk fan nga jógee parce que tam ñoom ñoo souscrire à une police à une police d'assurance tey nii bu fekkoon ni mouvement gëm sa bopp bu buggaan jiite dafa signe contrat ak IAM ñu ne képp ki nga xam ne militant nga de ce mouvement mën nga dem defi formation foofu sur trois mois ok étudiant keneen bu jógee euh, Bamba ànd ak Bamba jógee yëmbal ñëw daañu ko laaj ndax dangaa bokk sur maa gëm sa ah, bopp donc je pense que fat j'essaie d'expliquer pour ñu comprendre man noonu laa ko comprendre parce que man je refuse encore une fois de verser dans une émotion collective à ma qualité de journaliste quel que soit lu mu tartar lu mu métti métti je toujours am pour analyser, mais avec froideur, pour éviter véritablement toute, toute dose d'émotion. Mais nag gone gi ndaxam xam évacuer nañ ko malheureusement malheureusement te kenn ñaanu koon yàlla jël bakkanam fa la faatoo diggante euh, boobu fu mu faatoo clinique boobu est-ce que on va dire c'est suspect c'est suspect on se pose la question c'est combien de personnes accidentées de la route la ñu évacuées dans un hôpital ñu faatoo si hôpital du jeex c'est combien de personnes ñoo am manifestation am au-delà des des manifestations de jeudi dernier moo am ñu ramassé leen yóbbu leen évacuer leen ñu faatu est-ce que on dira que foofu la faatu c'est suspect peu importe parce que itam fii dafa am corrélation ak connotation politique parce que itam wax nga ko docteur Nia am na ay prise de position yoo xam ne même ministre porte-parole bi muy mujjee génn dafa ne un médecin militant un médecin militant ça ne veut pas en réalité parce que en réalité approche approche approche non approche liée à la communication politique là du ministre oui, parce qu'il est très <laughs> intelligent clair. parce que je le dirais mais docteur docteur docteur que nous respectons beaucoup par rapport à sa posture responsable du, du docteur Malick Diop Ah oui, c'est un docteur pharmacien, il militant. Ah. <laughs> Voilà, autant de docteurs militants. Donc, la Quel législation exemple? ne l'interdit pas. Manga. Non, la législation n'interdit pas. Même s'il l'est ou s'il ne l'est pas, mon fait, mon la législation ne l'interdit pas. Maintenant, qu'on lui pose des questions sur l'état de santé d'Ousmane Sonko ou de notre patient, je dis, ça, véritablement, ça relève du secret médical. Ça relève du secret médical. absolument léegi nag nit kële wax na ne attentat sur sa probable attentat sur sa vie je pense que su fànn woowu itam war nañu mën a xool effectivement sil lan moo si nekk dëggantaan mhm. lan moo si am dëggantaan est-ce que li mu wax noonu am na mhm. xëy na am na yeneen mécanisme yoo xam ne war nañ si war nañ si mën a jaar pour effectivement xool ndax poison bu ñuy wax probablement am na wala amul mais le docteur dans l'exercice de sa profession mënuñu wañ loxoom pour wax loo ko loo xam ne moom moo ko moo ko def moo ko moo ko xaram moo ko saytu dem si li nga xam ni moo relevé du secret du secret médical mhm. parce que itam même nit dina faatu nekk autorité bu mag gis nga ni dañ la naan même pour euh, ñu rendre publique li nga xam moo di secret médical lu lu lu lu ëmb wérgu yaramam en réalité ça peut prendre des années. sa ça peut prendre autant de trucs pour ñu mën a xam effectivement kii jamono lan moo ko faatoon. donc il faut quand même que l'on yooyu di ko bàyyi xel parce que souvent canton on dit dañ ko laaj c'est grave kon dafa mel ni laaj boobu moo andi faatu gi mu faatu. te laaj googu noonu. c'est par rapport à la souscription. à l'assurance liée à une structure privée. Ce qui est Parce normal, parti politique, oui. c'est parti politique, c'est, c'est une, une entité privée, c'est une association privée. Encore une fois. C'est une association privée. tey jii nii Bamba tey jii nii bu ñu namoon ndogu ji. am na léeg-léeg defaral ndogu maa ñëw am na fu ñuy dugg foo xam ne. dégg nga non non am na foo xam ne fu ñuy dugg bu ñu ne hé yéen fa ngeen jógee. quand même c'est clair voilà donc il faut ñu jëlee ko noonu. <laughs> mais encore une fois je dis que docteur. quoi qu'on puisse lui reprocher encore une fois. téye amul sens. da ko bàyyi ko mu dellu si liggéey mu am sens. mais ah, man li mu ah, ah, avant d'être étonné dama ne. xam nga bàyyi ko mu bàyyi ko ba pare saay boo ko soxlaa woo ko dégg ko moo gën ko nga téye mm. lu tax parce que itam. da ngay gis ni kuréelu docteurs yi. ëmb ordre des médecins bu ci duggee Sénégal gi yëpp. oui ñoom lancé nañu li nga xam moo ah, seen seen seen seen mot d'alerte. te mot d'alerte boobu noonu. fa mu lu mu mën a jur. Mm. suba si paralysie du système. kenn xamul fu muy toll. tout à fait n'oublions pas que depuis plusieurs années. depuis plusieurs années par rapport ak li nga xamoon ni fuite des cerveaux Sénégal mi ngi perdre. ay mm. médecins urgentistes. mi ngi perdre ay médecins généralistes. mi ngi perdre. ay cardiologue ay neurochirurgien ay yaa ngi dégg te Mohamed. Mhm. malheureusement fu ñuy dem France États-Unis Canada feneen feneen di liggéey. xam nga donc il faut que même ñu am loo xam ne dañ koy jox parce que itam bu fekkee ni jamono ji ñu ngi koy wax de xam nga tey jii nii ñu ngi naan euh, ñu ngi saaga fee ñu ngi saaga fee mais euh, Bamba. Mm. li gën a grave te ñu ngi koy te ñu ngi koy seetaan mooy ñu ngi commencé di bëgg désacraliser la fonction. quand même de de de de médecins au Sénégal. ñu ngi koy commencé di désacraliser par rapport à des considérations politiciennes uniquement politiciennes on essaye ou on est dans la tentative de vouloir désacraliser la fonction de médecine. Mm. mais Bamba nag si la médecine s'affaisse au Sénégal. ba docteur sañ taw jël microcorom. <laughs> tafal la ko. ndax mi ngi suuraale. en réalité alors alors balaa ñuy yokkal dara. waaw allez est-ce que amul dose de manipulation là-dessus. parce que dans un premier temps bu ñu déggee euh, un wax ne euh, dinaa porter plainte euh, docteur Niang parce que bon ñëpp jàpp nañ ne non assistance à une personne en danger la la la def ak laaj yu mu laaj xëy na peut-être patient wala accompagnement patient bi loolu est-ce que du doon jafe ci. anam gi ñu toll ci situation bi. waaw mais euh, Mouhamed nu ñu waxee loolu en français euh, euh, tout m'a marché sur la langue. parce que dama bëggoon wax na je suis mm. que intervention bi Abdoulaye Mbow def yëpp analyse pertinente bi mu yëpp. pourquoi waxaalewul si non assistance à une personne à danger. non non attention attends y a eu y a eu. non non non non attention. tu as vu j'élève la voix parce que c'est ce que je viens d'entendre ah. est d'une gravité extrême. non s'il vous plaît quand même quand on tient des propos de cette nature là. en réalité s'il fait pas attention diffamation je, le poursuis pour diffamation ah. <laughs> peut-être non non je dis je le poursuis pour diffamation. ah d'accord j'ai dit malgré. non non malgré li mu a leeral il y a eu une prise en charge. ah prise en charge amoon. am na. ok c'est dans l'évacuation. Mm -hmm. mais il y a eu une prise en charge. te soo buggee nga demaat. sur place ah arrivé sur place non une prise en charge. Ah. man fañ ko jëlee. fañ ko jëlee ak fañ ko yóbbu. il y a eu une prise en charge. ok donc boo nee non assistance à personne en danger. mooy prise en charge am am non moom mooy affaire donc yow. on a compris bu fekkee ni soxla na la woo. Euh. war na la mën woo parce que am na loo xam ne xam nga ko si loo xam ne ñun xamuñu ko si. Ah, loolu loolu leeral na li ah. bu tujul du am. waaw leeral na kon li mu bëgg a wax dama ne euh. man li ma wax jërul sax muy yëkkatu ko ba kawe man li ma c'est facile simple clair et net dama ne si analyse si intervention pourquoi dégguma si mu ñëw